lii nga xam ne may xeex pour les travailleurs dama koy def te travailleurs yi tax te duma ci dellu ginnaaw asalaamaaleykum internet Senego TV ak Kawtef ravi de dañuy kontaan rek saa ne di leen di ñëw di leen di toppal li nga xam ne buñ ko mënee jàppee cas wala situation boo xam ne rek dafay ñeŋal ñu indi ci ay éclaircissement sans doute yëg ngeen li nga xam ne mooy affaire Mati Ñing mu nekk assistante bi doon liggéey fee ca SETER ba ñu nag defee li nga xam ne rek mooy licenciement ginnaaw ay ñaari ñaari CDD yu mu def ca boobule entreprise ak ay at yi nga xam ne liggéey na fa ba mu defee conférence de presse dañu jugé nécessaire toog ak moom ngir indi quelque éclaircissement euh, ci boobule mbir mbaa it balaa ñuy dugg ci waxtaan bi mati dañ lay bàyyi nga nuyoo ko internet Sénégal TV ak Kawtef euh, maa waa Senego TV di nuyu sénégalais yëpp yi nga xam ne ñoo fi nekk di saluer euh, euh, les commentaires des sénégalais gis naa soutien ñëpp nag parce que Sénégal moom li liñ naan euh, dëkk yoon la donc nit ku nekk boo xoolee li nga xam ne ñu ngi koy gis muy raam te du jëm fu baax yoon la kon ñu am ci ay conseil et donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi may liggéeyal nag duma leen fàtte parce que ce sont eux ma famille maa leen sant bu baax gis naa seen taxawaay ci kaar <laughs> déjà ñi ngay liggéeyal démb rek ñoo wane nañ seen bopp ci benn mouvement bu ñu def ci matinée bi euh, tey boo ñu ñëwoon dikkalaatal ñu ci sa mbirum yow ak waa SITER ñaata at nga fa def lan mooy problème bi CDD bi CDI bi ba ci licenciement d'accord Euh, maa ngi rafetlu question boobu te dinaa sawar loolu ci tontu ko euh, si SETER maa ngi fa dugg depuis le 12 avril 2021 euh, bi bi ma fa duggee nag ci commencement bi doon nañ ñu wax naan li ngeen di njëkk a def mooy un contrat de 6 mois ensuite ñu teg ci beneen contrat bu 18 mois. Euh, ñu nee ñu bu loolu yëpp antoo seen euh, li nga xam ne mooy seeni performance wane ko ngeen am ci note yu baax dinañ leen évaluer nag suivant des étapes parce que période d'essai ngeen di njëkk a def après ñu leen di évaluer euh, chaque année xool ba xam vous avez atteint vos objectifs ou pas léegi nag bi nga xam ne évaluation yi bu bu yeggee à terme et que vous êtes bien noté. Donc, euh, ce qui s'ensuit, c'est le CDI. loolu la ñu waxoon au début léegi nag euh, situation bi nga xam ni moo am ba démb ay mouvement d'humeur am au niveau de la SETER mouvement d'humeur yi nag duma ci sori parce que ñëpp gis nañ li xew euh, li nga xam ne moo am mooy directeur général bi di Patrick Tranzer euh, moo jàpp ni man délégué du personnel la donc euh, il ne va pas renouveler contrat parce que je défends les intérêts du personnel. loolu nag maa ngi ko jotee ci par un bruit de couloir bi nga xam ni loolu am na dama ni duma ci sukkandiku parce que ay rumeur ci Sénégal ku ne xam na ni mën na jóge fu nekk bi ma ko déggee sax euh, xaw na ma def ay ree bi ma déggee ni DG moo yor sama dossier dans son bureau ni du valider sama passage c yi parce que délégué du personnel la xaw na ma def ay ree pourquoi parce que ci sama wàllu liggéey musuma ci am reproche donc maa ngi sant yàlla bu baax si loolu euh, ci laa dem ci DRH bi euh, monsieur Adama Niang giseeg moom waxtaan ak moom wax ko bruit de couloir yi may dégg ci la ma confirmeel ni ni ma effectivement ce dossier directeur général bi di Patrick Trenzer daf ko yor ci bureau Euh, te fa yéenewul valider sa passage CDI parce que dafa jàpp ni mail yi nga xam ne revendication yi fi amoon am na fi mail yooyu ci yow la doon jóge ci sa machine ma ni ko ah bon ma ni ko est-ce que xam nga ni man mosuma am reproche sama travail mu ni ma effectivement moom DRH bi témoigneel ma ci sama travail lu rafet ma di ko rafetlu parce que di liggéeyal nit muy gis li ngay liggéey donc c'est quelque chose déjà bi mu defee témoignage bi et tout ma ne ko est-ce que xam nga samay not parce que not yi ma am c'est excellent mu ni ma waa ma ni ko est-ce que DG xam na def distinction entre casquette d'un délégué du personnel et une assistante manager ma ni ko on dirait non te yow mi nga xam ne yaay DRH war nga cee taxaw bu baax parce que lii bu amee mën na jur leneen euh, bi ma ko waxee loolu bàyyi leen ñoom ñuy étudier cas bi bi ma bi ñu amee confirmation am nag demoon nañu réunion le jeudi 30 mars bi ñu toogee jeudi 30 mars ak euh, yeneen délégué yi ñu woo Abdou Ndéné sàll xamal ko li nga xam ne mooy raam actuellement au niveau de la SETER biñ ko xamalee loolu yëpp ni ko lii nga xam ne DG bi nan na ko def bu ko defee mën na indi coow ci lañu ni léegi may leen ma après dinaa leen revenir euh, je je vais demander auprès de après man dinaa leen revenir daal au téléphone la ko wax Abdou Ndéné Sall le 30 mars jeudi oui dans l'après-midi léegi bopp ba léegi ba ni may waxee ak yéen nii dégguma ko fenn démb nag dégg naa ci ay euh, propos mu ni dama dem gis ñeneen donc euh, man da gis ñeneen cest à kenn influencé wu ma encore une fois dafa ni dama dem gis ñeneen xëy na conférence de presse bi lay wax mu ne dafa dem def conférence de presse ak ñeneen mënoon na nekk ku ñu repêché mais comme dem na gis ñeneen ma di ko xamal ni balaa ñuy gis ñeneen ñooñu ci moom lañ njëkkee te aussi euh, lenn am na. bi bi ñuy def conférence de presse bi man fekk na jot naa DRH euh, euh, bi ak sama directrice Awa ba ñu jox ma benn lettre portant pour objet fin contrat ci suba gi lañ ma ko jox euh, ay vers 9 heures il y avait l'huissier de justice là je donc je vais pas mentir sur ça bi ñuy dem ci conférence de presse presse ay midi jot na demoon nañ sax ba di ko jéem a saboté bañ ma jox samay heure de délégation pour ma génn léegi nag bi nga xam ne loolu am na man dinaa signaler sénégalais yëpp ni man bokkuma ci benn parti politique employé la te ci dossier bi dama ci woo képp ki nga xam ni yaa ngi taxaw employé yi parce que lii ñu nar a teg mati metti na lool parce que xoolu ñu ne femme enceinte la xooluñu ne travailleuse la xooluñu ne dafa doon défendre les intérêts du du de de de de ses collègues tey jii DG bi bu naree jël lépp wékku ko ci parce que dama doon défendre la personnel te naa leen avouer une autre chose maag DRH bi biñ toogee confirmeel na ma ni que DG dafay dem ba euh, fin contrat bi mu ni fin contrat simple la on est d'accord fii fii Sénégal xam nañ ni ne CDD moom c'est pas protégé parce que dès l'instant mu jeex rek ku xam na ni day jeex mais nag dañu promettroon leen au moment de des recrutements ni ñu toute personne qui est bien notée au terme son passage sera en CDI pour vous dire une chose man j'ai été bien notée j'ai été bien notée j'ai eu j'ai atteint mes objectifs J'ai j'ai fait un travail remarquable. J'ai été professionnelle. J'ai jamais eu à mélanger mes deux, mes deux rôles à la CPR, euh, qui est mon rôle de déléguée et mon rôle euh, d'assistante. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas entrer en CDI. Pourquoi Parce que sur tout le plan professionnel, j'ai réussi et j'ai eu le témoin de, de mes collègues, le témoin de mes managers, mais not le, le, le aussi. Donc, man je ne vois pas pourquoi nous devons retenir Mati, alors que le poste est là. Le poste est fofo. De l'union supprimer. Non, non, de l'union supprimer. Parce que quelqu'un supprimer, ça existe. Ça existe, bataille. Boudoul Mati, quelqu'un l'a donné. Bien vrai que. De cette règle, mon entreprise, c'est quelque chose de principe. parce que nit ki mënoo jël son fin de contrat di ko utiliser comme ay char de combat mënul nekk parce que fii sénégalais ñun dañ liggéey lañ gëm donc tey lii nii bu xewee dinañu jaaxal loolu Patrick Trenzer lii mu def nii sañu ko def France parce que teg nañ ma stress ba nga xam ni je suis une femme enceinte xoolul loolu je suis une femme xoolul loolu je suis délégué du personnel représentant du personnel donc su may ñëw di ko wax ay revendications sur le personnel dafa waroon a kontaan xam li nga xam ni mooy jëmale liggéey bi kanam ñu def ko. li nga xam ne nag amoon na fi comme ay revendication bëri na. revendication yooyu est-ce que mosu leen cee am ay échange aigu en tant que supérieur yi ngeen xaw a euh, jaawaloo ci kàddu. ñu ngi commencé ci prime de nourriture yi. bi mu ñëwee rek li mu njëkk a def mooy jéem a supprimer prime de nourriture mu nekkoon avantage yi nga xam ne ñi nga xam ne amuñu woon accès à la restauration ci la ñuy ci la ñuy euh, ñoom lañ koy jox. léegi mu ñëw euh, daal di jéem a supprimer loolu bi mu ko defee gars yi bi ñu jotee seen bulletin de salaire gisuñu ko ci la commencé coow lu jug ñun en tant que délégué du personnel ñu dem ak moom taxaw ak moom ni ko li nga xam ne dem na ba nit ki recevoir ko moom mu figurer dans son bulletin c'est un acquis kon tey waroo ñëw di ko dindi parce que ñooñu bu dul dara ñi ngi ci naaj bi mooy ASV yi ñi ngi ci gaar yi amuñu accès restauration seen liggéey may leen ko ñoom ñoo ko daan bénéficier wu. ñu ne ko loolu nag boo ñëwee tey di ko dindi ah te ñin ni xëy na ñu ngi ko doon xalaat ci seen salaire doon na am lu mu leen jariñ kon loolu tey boo ñëwee di ko dindi dina problème dina am ñu nekk ci discussion ak moom metti woon na nag discussion yi je vous l'avoue dem nañ ba ni ko bëgg nañu nag réponse si waaw wala déet loolu noonu da nga ko bëgg a supprimer da nga koy fay ou meroon na nag parce que moom liy mbébatoon mooy mu supprimer ko léegi ñu topp ci loolu di ko xeex di ko xeex ba mujj ko supprimer ba man sax ma ne ko non seulement ñoo ñu nekk ci terrain boobu mais ñi nga xam ne ñoo nekk à la DMSB à la DMMR te amuñu accès à la restauration te amuñu accès à la restauration ñooñ tamit dañ ci war a bénéficier wu ñu di ko xeex ba nga xam ne loolu noonu am nañ ci gain de cause xëy na loolu metti na ko tam voilà. syndicalisme boobu est-ce que ñoom accepté nañ ko au sein de l'entreprise. au yi am na ay temps doon doon nañu jot ay revendications employés yi ni ñoom ñëpp dañu bëgg moom mu jóge fi moom Patrick Tranzer pourquoi parce que harcelé na fi ay nit ku ci mel ni euh, l'informaticienne dafa ñëwoon bureau pour régler imprimante mu di ko réparer loo téléphone personnel am. kooku si ginnaaw bi mu bi mu nee ko du réparatrice mais informaticienne de réseau la ci la ko dàq fu mu koy jaarale moom day danaan teg bàyyi ba sa CDD jeex mun la voilà même si tu es bien noté alors que c'est pas ça on a pas entré à la CETER avec ça dans la tête on s'est on est entré avec la e, dans la CETER en se disant que suñu liggéeyee bu baax suñu fin terme donc mën nañu am CD yi mu def ko noonu dàq ko amoon na beneen femme bi nga xam ne euh, da doon jël ay heure allaitement am euh, c'était la même chose moom tamit bu waroon wàcc par exemple 14 heures wàcc à 13 heures heure yooyu indil ko ci ay problème ba mu am ci problème ba ñu dem ba dàq ko ci noonu bàyyi ba fin de dem ñun ko duñ la renouveler am ci kaawu ki nga xam ne mooy directeur juridique bi euh, boobu foog naa ñëpp dégg nañ ko mu mu ne ko tu n'es pas solidaire avec moi donc <laughs> maanaam moom ku solidairewul ak moom rek daf lay dàq te directeur juridique mooy ki nga xam ne tey jii dafay jouer lu bari ci éthique entreprise bi loolu weesoo Lamine Camara ku ne dégg na histoire am comptable responsable comptable bi mu dàqoon moom tamit demoon na ba harcèlement bu mag ci moom mu jot ci ay 65 demandes d'explication dem ba di ko laaj jour 4 avril lu tax liggéey woon bay tracé otoom naan ko sa oto fii la nekkoon te suñu jour fête de l'indépendance ce qui veut dire que kon Patrick Tranzer respecté wul sénégalais yi respecté wul employé SETER yi lu ko neex lay def te kenn du wax parce que suñu supérieurs yi daf leen jox un bon exemple ni leen bu ngeen solidairul ak man dama leen di dàq comme ni ma dàqee directeur juridique bi ki def loolu directeur juridique xam nga ni bàyyiwul ñeneen déggee say kàddu moom il est habitué des faits ku nekk ànd ak moom di nga am promotion bu nekkee ne def meewul noonu su boobaa sa fin de contrat CDD bu jotee doo doo jàll même bu nekkee am nga moyen bu ñu sukkandikoo say kàddu doo fa nga ko fekk bi nga ñëwee yow lan nga indi comme changement en même si ñu revenir at ci question syndicalisme bi est-ce que bi nga ñëwee accepté nañ ko il fait bi ma ñëwee euh, posé wu comme candidate euh, ci ñun on pas affilié à des syndicats je précise encore une fois ñun ay délégué du personnel la on est là pour défendre les intérêts des employeurs du benn syndicat nag bu ñu mës a wu bi ñu ñëwee dañuy xool revendication yi nga xam ne moom la ñu employé di jox moom la ñu yóbbu élection yi nag man maa nekkoon ci sama collège ci kaw man lañ faloon ci kaw kon nga xam ne kooku employé wóolu nañ ko kon tey su ma leen di défendre du ma jiital sama intérêt personnel mais damay jiital ñoom seen intérêt li nga xam ne moom lañ bëgg ci la ñuy dox bu ngeen xoolee le 2 août 2022 c'était defoon num beneen mouvement d'humeur mooy bi ñu takkee woon ay brassard rouge boobu ñu ngi doon dénoncer harcèlement yi ak condition de travail yi nit yi nekkee parce que di liggéey di tiit fi nga nekk donc euh, loolu nit ki mënul ànd ak xel mu dal yooyu yëpp doon nañ ko xeex te biñ koy xeex dem nañu ba déposé woon une lettre de notification de conflit au niveau de l'inspection du travail ba inspecteur bi convoqué woon ñu convoqué la SETER ba ñu génnee ci benn euh, lettre de réconciliation wax nañu ci point yi da ngeen dem ngeen ànd ngeen discuter ci procès verbal boobu ngeen discuter ci bu ngeen ci discuter ngeen xool nan ngeen di trouver solution euh, face à tout ce qui se passe muy harcèlement yi femmes di nos salaires qui sont précaires di li nga xam ne mooy condition de travail des travailleurs condition des travailleurs léegi bi ñu ñëwee ñuy jàpp ni lépp dal na daal parce que xam nga ni depuis août ba léegi yàgg na boobu ba tey ñu ngi ci ay négociations ba tëral li nga xam ne moom moom la ñu moom la ñuy wax euh, ay euh, accord d'établissement pour que condition de vie des des employés yooyu mën a améliorer wu mais gis na ni loolu noonu ñu def xëy na si biir du ko arranger mu ne te comme kii moom bokk na ci loo bi nga xam ne moom mooy coordonnatrice de tous les délégués naa dagg boppam comme ni mu ko defee directeur juridique bi rek naa dagg boppam yeneen directeur yi topp sama ginnaaw kon tey kii nga xam ne mooy coordonnatrice de tous les délégués su ma daggee boppam xay na ñeneen ni dinañ am lu ñuy ragal. xam na ñu ngi lay seetaan ak lan nga bëgg poursuite par rapport à la situation parce que même bu nekkee contrat bi CDD la jeex na mais aussi ak anam bi mu jeexee instant bi lan ngay réclamer lan nga bëgg ñu def. man euh, damay woo woolu j'interpelle euh, le président de la République Macky Sall parce que c'est lui le père du Sénégal quoi qu'on puisse dire je fais pas de la politique nag faruma fenn duma politique mais lii dafa doon cause bi nga xam ne dañoo war a défendre les employés parce que Sénégal euh, am fi liggéey ku ne xam na ni dafa metti man tiituma liggéey parce que fépp fu ma mës a jaar yàlla may na ma fa ma def fa ay miracle muy samay étude bu ñu xoolee ci samay étude j'ai toujours été parmi les meilleurs bu ñu xoolee en 2013 j'ai failli être la première femme pilote au Sénégal parce que j'avais réussi le concours officier pilote de l'armée de l'air nous étions 809 candidats j'étais la seule qui était passée à ce niveau-là et j'avais une moyenne de 19,75 si je me trompe pas kon kon kon kooku tey jii nga xam ne lépp lu muy def daf ko jàng j'ai fait pas mal def naa sama formation maintenance mécanique industrielle def électromécanique dem ci entreprise yi def fa stage dem Dakar Nav au niveau de l'armée de l'air def naa fa euh, maintenance aéronautique stage ba participer ci maintenance euh, Fokker avion F27. donc tey jii kooku tiitul liggéey def naa Dakar naam film Maurice beneen Sénégal def merci chip ba anglais yi fa nekkoon sax dañu feet day jot ñu bind carte di ma woowee hard worker pourquoi parce que man sama liggéey dama ko gëm donc tey suma sañoon ba képp ki nga xam ne yaa ngi Sénégal surtout ngay femme ak foo mënti nekk muy le président de la république que ñu protéger li nga xam ne mooy suñu travailleurs yi surtout ñi nga xam ne ñoo ngi nekk SETER ils souffrent ils souffrent et cette souffrance ils le font en silence tey jii nag bu nga xamee ni am na ñi nga xam ne ñoo fa nekk di leen défendre tey jii bu ñu leen bëggee éliminer parce que ñu ngi défendre ñooñu il y a problème il est temps que le président Macky Sall prenne les choses en main man loolu laa noonu ma ci wax important parce que it aussi dafay baax tey sept heures lañ la xamee mais c'était bien que nga def rappel sa cursus sa parcours ñu xam ne euh, femme bu polyvalente nga ku am aussi ay compétence donc sept benn épisode la woon rek boo xam ne euh, da nga fa dund injustice comme ni nga ko waxee mhm. injustice boobu nag mhm. ngay réclamer que mhm. ñu def li nga xam ne mooy yoon def li nga xam ne mooy àq ak yelleef ñu fay liggéey ci foofu ca SETER mhm. tey ba tey ci coow bi parce que ñu mhm. ci dañ la xamee mhm. en même temps aussi nga nekk ci benn condition duñu sax xuus foofu ndaxte femmes yi nga xam ne dañu nekk ci entreprise yi mhm. elles sont des battantes mhm. ay jàmbaar lañ benn jante féminine boo xam ne mhm. euh, da dañ leen di discriminer ci seeni euh, soit condition état de santé wala état bi nga xam ne moom nga nekk tey sa famille sa entourage nañ leen ko dundee ak état bi nga toll état bi ma toll sama entourage bi mu koy dundee franchement metti na torop mën naa ne sax man dëgër bii ma ci am ñoom bu doon ñoom lañu si ko si fokke nañ bu yàgg mais dama xam ne ku nekk ci dëgg waroo ragal et man encore une fois j'ai pas peur de dénoncer l'injustice qui se passe tey jii metti na loolu parce que moo mari n'est pas Sénégal mi ngi woote tout le temps d'ailleurs léegi euh, woo na ma sànq nii rek bi may euh, déplacé wu chaque instant mi ngi inquiété wu kon c'est pas facile pour lui sama côté parents yi aussi c'est pas facile parce que ku nekk ñu ngi leen di woo naan ko sa doom ji nii sa doom ji mais xamal ni yéen la ñuy soutenir parce que ku xool keroog ni mu toogee waxee ko rek ci conférence de presse bi nga xam ni kon kii jàmbaar la su ma triste ñoom ñoo tax mais lii nga xam ne may xeex pour les travailleurs dama koy def te travailleurs yi tax te duma ci dellu ginnaaw forte jàmbaar épisode bi day day jàll. message ñi nga xam ne jigéen lañ te ñu ngi liggéey te aussi euh, seen dëkkuwaay fa ñuy liggéeyee métti na wante it euh, coolu àdduna tënk na leen mënuñoo bouger ndax charge sociale mënuñoo bouger ndaxte li wekku seen ginnaaw bëri na mënuñoo bouger waaye fa it gisuñ fa seen bopp te ragal nañ génn ndaxte ragal nañ tey bu ñu kitee wala bu ñu fa jógee rek euh, li nga xam ne mooy charge yi wala ñu nekk seen ginnaaw dina métti nga lancé leen message rek après. Euh, femme yooyu maa ngi delloo njukkal d'abord parce que man euh, des fois sax tam ñu ni ma da nga féministe mais en tant que femme boo ko dundee nga xam li femme di daj dans notre société da nga war a jàppale képp kuy femme femme yooyu maa ngi leen di encourager di leen wax ne bu leen mës a ragal avancer bu leen mës a ragal aussi échec parce que boo ragalee échec rek xëy na fi ngay daanu mooy gën a bari parce que dans la vie li am importance mooy il faut savoir se relever il faut savoir à chaque fois qu'il y a des difficultés devant toi de savoir les affronter man loolu laa gëm maa ngi leen di encourager nag képp kuy femme foo mënti nekk bu mu doon chantage bu mu doon dara li nga xam ne dañ la koy teg pour nga am promotion wala pour que nga mën a dem de l'avant bu kenn nangu chantage donc en tant que femme dañu war a takk suñu ndigg tey jii toog di liggéeyal Sénégal parce que Sénégal lañu am waa kon puisse dire donc ku nekk boo sañoon di nga apporter ton pierre à l'édifice de telle sorte que ñun ñëpp dañuy bokk dem ca kanam man message boobu lay lancé képp kuy femme di wax tamit képp kuy femme na jug soutenir Maty dans cette situation. Mhm. internet Sénégo TV ak Kawtef Maty Gning lañ leen indiloon moom nag moo am li nga xam ne mooy CDD. bu am deux ans ñu jékki-jékki rek daal di ko arrêté yi ba ñu ko promettroon fee ca entreprise ba ñu naan SETER daal diwul mucc raison yi nag moom évoqué na ko fi wante it mati mi ngeen toogal nekkul ay compétence am ci SETER rek la nekk ndaxte it am na yeneen casquette yoo xam ne mënee na ko tey def na ko ay preuve fi mu jot jaar ñu ñaan rek fi nga xam ne mooy Sénégal seen doom la am na compétence mën na liggéey SETER naam fa la doon liggéeyee wante li ñuy wax rek entreprise boo nekk it sa wërsëg bu fa jeexee allah kulli aali da ngay dem na dem ba rafet rek mm-hmm. ak it contact ngeen garde ko ndaxte dem ba bu rafetee ci ngeen mën a garde yenn contact yi mm-hmm. ñu leen di tàllal loxo rek ci ñi nga xam ne pas tàllal loxo pour promotion pas tàllal loxo ndaxte it dafa nekk situation luñ ko jox mu jël mm-hmm. tàllal loxo parce que elle est compétente te it am na diplôme yi nga xam ne fu ñu ko ci woo ci yenn secteurs yi dina fa ñëw wone li nga xam ne mooy compétence am kon ñu ngi leen di tàllal loxo ci kaawam bu leen insensible ci kaawam def leen réaction te it yàlla ñu ngi lay ñaanal mhm. nga am liggéey bu gën sa teer ñu ngi lay ñaanal aussi situation yi nga génn ci mhm. euh, bu baax a baax mhm. yàlla def li gën ñu bàyyi la rek nga tàggook internetu Senego TV ak Kawtef wax sa dernier mot d'accord waa Senego TV euh, maa ngi rafetlu taxawaay bi parce que di leen euh, sant bu baax di sant aussi euh, yeneen journaliste yëpp ci Sénégal ñi nga xam ne tàllal nañ ma seen micro ñenn ñi ngi may woo maa ngi jéggalu nag mënumaa jëlandoo ñëpp parce que kenn laa te ak sama état santé duma may may may may recevoir journaliste yëpp mais li nga xam ne mën naa ko mooy partager naa ak yéen li nga xam ne moo xew maa ngi remercier ñëpp di remercier képp kuy journaliste di remercier le Sénégal entier di remercier sama famille liggéeykat yooyu di DMMR direction maintenance matériel roulant di remercier la CTR entreprise euh, société d'exploitation du terre ku lim dangay ngay juum du ma lim nag maa ngi remercier Sénégal yëpp di remercier sama famille di leen wax ni jàpp leen bu dëgër seen doom mi ngi nii te incha allahu rabbi man gëm naa ni sama carrière du fii lay yem incha allah.